mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci biir réew mi ak yéen ñi nekk ci bitim réew maa ngi leen di nuyu euh, mbokk yi nag euh, xam ngeen ne kero bi Guy Marius Sagna defee ay alerte ci terrain yi nga xam ne président Macky Sall dig na ko équipe nationale bu Sénégal booba ba léegi gis naa ne euh, dafa mel ni dafa am sunu mbokk yoo xam ne dañoo organiser ab campagne de diabolisation jëmale ko ci Guy Marius Sagna Euh, ñenn ñi dem nañ bay wax ne gii mari Sagna dafa saaga suñu kilifa diine yi alors que loolu méngoowul ak li nga xam ne moo am te jàpp naa ne ñi bind wala yi wax ne Guy mari Sagna dafa ñàkk ma suñu kilifa diine yi ñooñu di ko bind ak di ko wax ñooñu ñoo ñàkk ma suñu kilifa diine yi ñooñu ñoo ñàkk respecté suñu kilifa diine yi ndax nag amul fenn fu Guy Marius Sagna ñàkkee worma benn kilifa diine te li Guy Marius Sagna wax euh, waxuma ku bëgg a diaboliser wala ku bëggut dégg dëgg waaye képp ku yub taalibe daf laa war a neex te danga war a comprendre bu baax a baax a baax fi Guy Marius Sagna di waxee euh, ndax nag tey amul benn taalibe amul benn taalibe bu bëgg ñuy tudd ci rajo yi ak ci télé yi ak ci journaux yi di tudd sab sëriñ di tudd wàllum suuf amul benn taalibe bu ko bëgg firnde bi mooy bu ngeen fàttalikoo ay at ci ginnaaw lu yàggul 2020 fii bi fi ma jambal jaañ bindee benn chronique wax ne camp la bi nekk ci quartier Liberté 6 dafa am benn kilifa diine buñ fa daggal neuf hectares kilifa diine gi jaayaat ko cinq milliards loolu ma jambal jaañ bindoon ne kilifa diine dañu am ñu jël wax jooju moomale ko benn kilifa diine bu nekk ci yoonu murit mais biñ ko moomalee waxi ma jambal jaañ jooju benn kilifa diine ci yoonu murit mais taalibe ñépp la naqari taalibe murit yi ñépp amoon lu leen naqari le fait que ñuy wax rek ne dafa am benn kilifa buñ jox neuf hectares mu jaayaat ko ñenn ñi moomale ko benn kilifa ci yoonu murit taalibi yépp la naqari woon lu mel nii la Guy mari Sagna di bañal suñ kilifa diine yi ndax nag euh, euh, bu ngeen fàttalikoo ba tey ci texte boobu ma jamal jaañ bindoon dafa waxoon ne quand le clerc dafa am benn parti boo xam ne dañ koo dagg 63 parcelles cinq cinq cent mètres carrés euh, jox ko ñi nga xamante ni tey ñooy ay autorités politiques ay hauts fonctionnaires ay guides religieux ay personnalités étrangères ay opérateurs économiques mais ñii ma leen tuddal ñépp déggu leen benn turu politicien wala opérateur économique euh, wala benn personnalité étrangère wala benn haut fonctionnaire wala benn autorité politique mais guide religieux rek ngeen dégg gidd religieux rek ngeen dégg benn kilifa diine rek ngeen dégg ñu ne jox nañ ko euh, neuf hectares te pourtant 63 parcelles la cinq cent mètres carrés ñu jox ko ñii loolu la ma Madiambal Diagne bind waaye dafay mel ni la say gën a fës rek mooy kilifa diine bi xam ne toog na lu mat une semaine dafa dañuy wax ne am na benn kilifa diine si yoonu murid bu ñu jox nangami hectare mu jaay ko nangam ci milliard mu mu naqari murid yépp liggéey Mari Sagna wax te murid yi war koo dégg war koo comprendre te war cee kontaan mooy kii dafa ne état bi buy def ay mbiram ci suuf ay luubal dafay mbubboo suñu kilifa diine yi loolu la gii mari Sagna wax maanaam foo xam ne ay hectares yi hectare la amaana ñu baree baree baree fay am waaye dinañ fexe ba ak kilifa diine bokk sa xam ne bu ñu ko tuddee ba tur kilifa diine boobu senn génn ñu baree baree bari mën nañoo noppi ca mbir moom Eh, mais Guy mais loolu lay loolu lay dawal suñu kilifa diine yi alerte boobu la doon def beneen alerte bi mooy bañul ñu jox gaynde yi suuf waaye fan leen di jox bu mu am litige bu état bi tamit bëgg a jox gaynde yi suuf ba pare bëgg a def leneen ca ginnaaw loolu la wax dana état bi mën naa taxaw man même état mën naa dem foo xam ne amul litige amul dara jox fa gaynde yi ba pare demaat ca ginnaaw am leneen lu mu def ca ginnaaw jël prétexte Euh, équipe national bi te man jàpp naa ne amul benn taalibe murit wala benn taalibe tijaan ku bëgg ñuy tudd ci sëriñ di tudd mbirum coow ci suuf amut keroo biñ ko fi biñ ko fi bi fi ma jàmmal jaañ bindee loolu mais taalibe yi da leen naqari intervention yi ci internet bi fenn fu nekk loolu ci la gii Marius Sagna di alerte euh, kilifa diine yi ni ñu waree jox suuf autorité politique bi euh, opérateur économique bi haut fonctionnaire bi noonu lañ ko war a joxe kilifa diine bi su dee kilifa diine lañ boo xam ne jàpp nañ ne war nañ ko mën a jox suuf waaye bu ko ko état di jox na ko ko jox te bañ a jël kilifa diine googu def ko prétexte ngir def ay mbiram ca ginnaaw loolu si la gii Marius Sagna wax léegi nag euh, dama gis ne euh, dafa am ñoo xam ne dañu jóg uniquement mel ni dafa mission bu ñu leen sant waxoon naa ko fi ay weer ci ginnaaw ne dafa mel ni euh, Touba dafa am ñu jox mission ngir ñu diaboliser Ousmane Sonko ak yoonu Murit lu mel noonu waxoon naa ko fi waaye fi mu nii dafa mel ni dafa am ñu jóg tamit même personne les mêmes personnes bëgg a diaboliser mari Marius ak yoonu morit Guy mari saaña bu waxoon lu wër te wax ci yoonu morit ñooy bokk si ñi koy njëkk ñaawlu waaw ñooy bokk si ñi koy njëkk a ñaawlu ñi koy njëkk a dénoncé waaye gisuñu mu manqué respe yoonu morit te li mu wax ci mbiru suuf si loolu taalibe yi dañ si war a kontaan nga xamul benn taalibe bi bu bëgg ñuy tudd sa sëriñ di ci tudd wàllum suuf état bi bu bëggee jox ay kilifa Euh, ay kilifa diine suuf na jox ay kilifa diine suuf waaye bum si jublu kilifa diine yooyu protéger ñaawteef bu mu bëgg a def mais loolu la gi Mari Sagna wax ma gis ne am na ñu jóg bëgg ko diaboliser euh, lu mel noonu waxoon naa ko fii ci kaawu Ousmane sonk euh, weer yële weer yële ci ci ci jàll dañoo toll nag jamono joo xam ne. nit ñi fëkk yóbbuwu leen nit ñi dañu mën a ràññat léegi dañu mën a ràññat bu baax a baax ndax xàmme nañ nag léegi sëbbuñ boxom ak sëbbuñ bojj beneen bi tamit daaw bi fi lañu fekk néeg seen senn yépp xàmme nañu ko